ndeysaan Bébé Balla ak euh, l'enfant chéri de Gandiaye ñi ngi leew toowaat ginnaaw bi Bébé Balla damee ci Ardo ñëwaat l'enfant chéri moo ñu wan gannaaw combat bi combat technique la ndeysaan combat technique l'enfant chéri moo jóge Gandiaye moo ñu wan gannaaw Bébé Balla wan ñu kanam jóge ci écrit bu mag ba ca Ajuma Diouf ca Kaolack ñu koy bëre fii journée su production le 25 décembre 2022 fii ci cœur de ville bu Kaolack ñaari xale yaa ngi bëre l'enfant série de Gandjay et Bébé Bala. l'enfant série de Gandjay, Bébé Bala. Bébé bala fait bëgg de dor mais l'enfant fancerie de stratégie ndeysaan fii ci de ville bu La l'enfant Bébé Bala. attention l'enfant série Kherbimi bi parce que gis naa ne mi ngi dóor loxo yi neex na mi ngi jaar yoon Bébé Balla attention attention Bébé Balla lu mu bëgg dafa dem bëgg a jël ko Bébé Balla jàppoo bi la bëgg mais l'enfant du taxaw dafa bëgg xeex bi moom it gis nga mi ngi am xeex bi Bébé Balla jàppante ñu daan na ko l'enfant chéri daan na Bébé Balla l'enfant chéri daan na Bébé Balla